mais am na sañ-sañ daw teggi tuuma man waxante dëgg tamit nous ne sommes pas dans un pays où ñii ils sont extraordinaires ñii ils sont pas extraordinaires nous sommes tous des hommes des humains kuñ ci tudd sa wala sa ndey ci nag su dul noonu dëgg pexe boo koy lijjantee waxtuma la yow ñu tudd la il faut qu'on lac qu'on accepte les gens le droit de réplique wax nañ ko nee na ñaari at Ousmane ko fu mu waxee tudd ma waaw mais buñ ko ko nangalee Ousmane ko mu koy tuumaal di ko tudd ci li mu wax mais war nañ ko mën a nangul moo mu dem teggi tuuma sa waaye nag fii fii der yëpp a yem ah. ku nekk da am papa ak yaay am njaboot aussi ku nekk am dignité booy préserver mhm. il a fait une sortie il a fait un point de presse pour pour laver son honneur et sa dignité comme Ousmane Sonko ni muy toogee ci confrance de presse yi di laver honneur ak dignité ak dignité am na wax bu ñu fa tollee amul ay gendarmerie ay je suis droit de gis nit nit la mais puis est-ce que sortie yi yëpp dina mujjee régler la situation régler le problème actuellement d'autant plus que ku ci nekk yaa ngi génnee ci boor bu nekk xoolal sortie sortie gauche ak droite yëpp ñaari mbir moo ci régler problème bi mooy ñi war a dem tribunal gis nga am na sénégalais yoo xam ne point de presse yeeg conférence de presse yi lijjanti wuñ ko parce que ku nekk xam na ne ñaari camp yi camp bu ñu def conférence de presse ku ne sa bopp ngay lijjanti maa ngi déglu conférence de presse bi nga wax léegi. Mhm. mooy Pastef bu Dakar. man déglu naa ko mais ñoom dañuy wax ci conférence Bassirou Gueye. Mhm. sëñ Bassirou Gueye dafa andi ak Ousmane Sonko kaw viol bi ko tuumal. Mhm. mais bi ma dégloo conférence de presse bu Dakar ñoom Bassirou Diomaye Faye. mais ils n'ont pas presque wooy Bassirou Diomaye parce que affaire 94 milliards Mamour Diallo yi mu ngi fii dañoo waroon tontu Bassirou Diomaye dañ waroon tontu. procureur Bassirou Gueye fee bi nga xam ne Bassirou Guèye ci la wax mooy diggante ak Ousmane Sonko ci tuuma yi ci am. mais mais moom foofu laa la doon waxee ne la casquette yi xam nga dafay xaw a jaxasoo d'autant plus que ñu ngi koy tudd ñu ngi koy wax ci affaire li nga xamante moo jëm ci 94 milliards yi te moom moo jiite OFNAC te yooyu yëpp ay dossiers loo xamante ne ne mu ngi foofu noonu ci bureau OFNAC loolu mooy tax nag. xam nga soo seetloo bi may tàmbali samay propos mooy bi ñu ko dénkee of nag super war naa génn leeral sénégalais lam fekk ci dossier yi ñu ko dénk daal ba mu defee passation de service mhm. waroon nañ ci teg ak diir gu gàtt moo décliné sa feuille de route par rapport ak li ñu ko dénk ñu xam lan fa fekk mhm. ndax am na ay kilifa yu jege Macky Sall mi seen tur ñu ngi of nag c'est clair te dañoo gérer woon ay deniers publics te deniers publics un franc mhm. cent franc ba nangay million ko sudul yoon cinq ans d'emprisonnement ferme la waroon na leeral Sénégalais yi dañuy euh, of na ñi ñu fa tudd waroon na wax aussi fooy duru tam fii laa ko fekk fii laa ko jëmee xam nga mam laa ubbee samay propos. si c'est pour dire que moom am na lu ko doy. lu mu war a wax ak Sénégalais yi war a leeral Sénégalais yi qu'est-ce qui se passe. mais ñaareel ba moo tax ne la sortie qu'il a fait. n'a rien à voir avec une sortie institutionnelle. d'accord avec communication institutionnelle waxul ci trop en tant que procureur. Mhm. waxul en tant que magistrat waxul en tant que ku ñu dénk OFNAC. Mhm. dafa ñëw setal deram moom mi ñu tudd moom Bassirou Guèye même si le titre de procureur mu ngi ci kaw. Mhm. mais nag doomu aadama la moo tax ma ne la. am na loo xam ne il faut qu'on l'accepte pour les gens fii kenn gënu fi kenn ndey ci réew mii ñu ne ñu baal ma ci waxin bi. kuñ fi tudd sa baay wala sa ndey. di nga taxaw leeral ko. et entre parenthèses am na benn communication bu ñuy jàllale ñu baal ma ci waxin bi. dëkku gat sa gat sa lañ ne loolu kañ la commencé xew moo tax dëkk bi nekk na ci dérive ba noppi ku nekk nga jël say matuwaay ku nekk nga jël say matuwaay dañu waxante dëgg ah, fii kuñ fi ne gat sa gat sa ne di nga jël sa matuwaay mais moom loolu la doon defante démb il faut na arrête il faut qu'on revienne à la raison et que c'est un dossier privé pendant à la justice mm-hmm. wóolu mm-hmm. mais il faut pas qu'on essaie d'enflammer le pays parce que ku ci nekk am nga foo am ne moom nga bëgg justice xoolee ko wala loolu nga bëgg sénégalais yi xoolee ko ils sont en de faire une communication très négative à l'endroit des citoyens sénégalais ñii ñu ngi bëgg sénégalais yi am leer xel mu dal ne bu ñu leen woowee waruñoo jóg ñii ñu ngi def ay communication yi inciter sénégalais pour ñu jóg ñaar yooyu moo fi nekk ñaar yooyu moo fi nekk mais nag bu ñu fàtte dans tout ça nous sommes dans une république nous sommes dans un état de droit quand on parle d'une armée mexicaine mooy dëkk boo xam ne amul yoon tel tel lu waaye mën a def def quand on parle de guerre civile gis nañ li xew Côte d'Ivoire barki démb yàlla bu mu fi am gis nañ li xew Rwanda la région des Grands Lacs guerre civile la ba léegi séquelles yi ak cicatrices yi mu ngi fa ba léegi mun a jeex mais tey am na foo xam ne suñ deful ndànk suñ deful ndànk buñ dellosul suñu sago je crois que nekk xoolal léegi maanaam mais boo duggee ci réseaux sociaux yi boo talee télé yi. sëriñ yaa ngi jaabati ci plateau yi naan waaye gis nañ lii xew gis nañ lii xew mais attends tout le monde on dirait que dafa am lu wàcc ci réew mi loo xam ne dañoo xabtal on dirait que dafa am lu ne ci réew mi loo xamante ne kenn comprendre atul dangay dugg ci biir famille yi mhm. xaajaloo am na kii day far fii kii far fii kenn wóolatul kenn mhm. da ngay kuy doxalee di calculer boppam sonna si le moment où nous sommes mhm. nous sommes dans un état boo xam ne les forces de défense et sécurité am nañu liggéey bu rëy clair. ils seront obligés de garantir la paix et la sécurité de tous les citoyens sénégalais. Et encore une fois de plus, je fais un rappel. Un État, c'est pas c'est les hommes qui l'incarnent, mais un État, c'est des textes, c'est des lois, c'est des règles. État amul couleur. État amul couleur, État du nit, État du parti, État ay loi la. te loi yooyu bu ñu fa yeggee état dañuy utiliser loi yooyu exécuter ko. c'est clair te bu koy exécuter ñaanuñu yàlla suñu borom ñu yegg fi ñu koy exécuter. comme ni mu waree mais nañu jëlee sot xel yi xam ne par parlo mënut a ñàkk mais nañu jëlaat suñuy xel xam ne réew mi suñuy papa suñuy yaay ak suñuy maama fi ne ñun ñëw fi dëkk mhm. kuñ ci koo si lor tey xoolal fii ne koo fi lor mbokkam mu wut nu mu lore sa mbokk ah. loolu mooy état a garsa garsa fa lañ toll instant bi ñu bal ma ci wan bi mais amuñu droit di incarner loolu nañ incarner la démocratie la discipline delloo si xel yi c'est clair ci noonu président Lamine Gueye euh, mu ngi koy wax léegi fu toll ni defante bi moom moo tax euh, ba ñu ci bëri gis nañ ne om religieux yi ñu ngi ci kàddu de tout bord euh, sëñ Mountakha fu si nekk actuellement ñu ngi dem foofu ca Porokhane fii ci Dakar Thierno Madani et autres mais est-ce que tey jii ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk ñaari parti yëpp laay wax pouvoir comme opposition ñu ngi jëfee yenn kàddu yooyu. non xam nga xam nga jàmm aussi dañ koy dox jàmm dañ koy wax jàmm c'est un comportement xam nga loolu tam mooy dëgg. c'est clair dire boo bëggee jàmm li waa ji def démb dañ koy éviter parce que polémique rek lay yokk c'est ça la vérité un un dossier bu dem tribunal dem chambre criminelle pourquoi bon sang. le procureur bi fa nekkoon di génn naan day leeral. lan lay leeral Lamine Gueye fu ñu la tuumaalee nga tegi eh, eh, tuuma. wax nga wax nga il faut pas commencer à s'anticiper. non dama ne wax nga sa xalaat teg tuuma mu tegi tuuma. Eh, ma ne wax nga sa xalaat. wax nga sa xalaat c'est-à-dire c'est-à-dire boo bañee kon kay na Maham Diallo génn wax. non kooku non defal ndànk rek. mais kii li mu wax leer na non sama droit de réserve am na foo xam ne sama droit de réserve. puy puy man maa yor parole. puy puy man maa yor parole. yow yow boo boo continuer sa logique. Mhm. kon na Maham Diallo génn wax parce que attaqué nañu. non bokkul de. waaw defal naa rek les cas de figure diffèrent. waaw mais bàyyi ma ma wax sama xalaat. kii li ko dëggoon tënkutu ko moo tax mu gën leeral wax sama xalaat. kon na Moussa Fall la xaw ma génn wax. général na yàgg génn wax na ñeneen ak ñeneen ñi ñu tudd ñëpp génn wax. Mhm. mais logique boobu doog non soo nekkee responsable. Mhm. am ay fonction yoo occupé de haute fonction. Mhm. dafa am lu muy laaj. mais li muy laaj aussi da nga koy nangu boo jiitoo aussi il faut que nit ñi wax ci yow. ça ne veut pas dire que li ñuy wax ci yow dëgg la. ça ne veut pas dire que soo génnee weddi ko nit ñi dañ lay gëm. buñ nga génn weddi ko ñu gën la weddi. moo tax ma ne la jaru ko woon xam nga nit xam nga fii la moo fi am solo. il faut être quitte avec ta conscience. c'est clair loolu moo ci am solo. gis nga lépp lu ñu la jox muy liggéey na ko def sa akulaay taala. Sénégal nag loolu mooy problème bi. loolu mooy problème bi. gis nga boo boo taxawee ci dëgg xoola ak lu ñu la mën a wax. dara du la pénétrer. Mhm. parce que yow leer na ni yow boo wéeteeg sa bopp sa conscience xam nga ne li nga def ci dëgg nga ko teg. Mhm. donc ti na pas besoin ku wax nga bëgg ko tontu non mënul nekk. Mhm. pourquoi pourquoi ki jiite réew mi du tontu kenn. pourtant on l'attaque te moom c'est le premier des sénégalais. Macky danga ko mës a dégg mu tontu ñaata yoon lañ ñuy wax ci Macky Sall pourtant moom mais yenn yi du certain nit la du ko neex <laughs> il a une famille aussi.